waat xaalis ba joxaat leen ko tey nag mu am jigéen ñoo xam ne dañ leen ko jox ña benn yoon ñu fay ñu joxaat leen ñaari yoon ñu fay ñetteel bi yoon bi nag ñu leen doon sargal jox leen kado doog leen a joxaat financement boo xam ne moom la ñuy dem ngir euh, liggéeyee ko lépp itam ci turu ONG Al Khayriya mi nga xam ne soxna Xalimatu Sàll moom moo ko taxawal di doom ci Serigne ab Sall. Euh, financement bi itam méttiwut comme ni muy méttee ni ngay demee ci yeneen barab yi ngir am fa financement. Euh, su su fekkee ne ñëw nga si ONG Alxayriya rek daal di gis ki nga xam ne moom moo di soxna Aminta jóg euh, su boobaa moom copie carte d'identité rek ngay indi ngir ñu mën laa jox li nga xam ne moom moo di financement bi premier bi nag dinañ tàmbalee ci yow cent mille francs Euh, am na ñu ñuy tàmbalee deux cent mille su fekkee itam maanaam dafa nekk groupement maanaam ay jigéen yu bari mën nañ leen a jox ba ci lu tolloo ko cinq cent mille francs ngir ñu dem liggéey ci su boobaa itam bu la neexee yow yaay xool weer wu ne nga ne temps laay joxe wala damay bàyyi ba fukki weer yi jot ma jox leen waaye su boobaa itam ONG Al Khayriya tegul dara ci li nga xam ne moom la la jox bu dee cinq cent mille francs cinq cent mille francs nga koy delloo waaw amul intérêt te boo ko delloo 500000 yi itam mën am na nu muy demee bu ak kóolute bu matee ci moom mën naa doubler 500000 yi ngir joxaat la ko nga ne dem liggéey da koo def ngir jàppale ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di jigéen ñi daf ko itam wax fu li ñuy wax wax fu ndax barab bi nga xam ne moom ngeen nekk mu di résidence bi wax waqfu la ONG Al Khayriyya li muy liggéey yëpp waqfu la moo tax euh, ndimbal yooyu jëme ci jigéen ñi waqf la ñu la joxee cent mille cent mille franc ngay delloo si te duñ la ci teg pression ngir nga delloo ko dañu la bàyyi ci sa teeyu bakkan ngir nga ngir nga delloo lool. Euh, gañewuñ ci dara lu dul fayuk suñu borom ndax nee naa la waqf la te waqf xam ngeen ne ku koy def euh, maanaam fayuk suñu borom nga siy xaar ONG Al Khairia lépp lu muy liggéey mooy orphelin yi mu yore. mooy école yi mu tabax mooy teen yu muy gas mooy jàkka yu muy yu muy yu muy tabax euh, mooy ndimbal yi nga xam ne moom lay joxe ci wàllu mbënd beeg ceeb yeeg même ordonnance boo demee altine bu nekk ak euh, alxemes bu nekk boo demee ci hôpital di nga fa fekk ONG Alxayria ñuy jëndal malade yi fa nekk seeni ordonnance loolu lépp daf koo def ngir liggéeyal suñu borom subhaanahu wa taala mais amul benn intérêt boo xam ne moom lay xaar lu dul fayuk suñu borom